fóot sax fi mu ne nii kenn ku ne ba nga gëjee fóot kenn xamul kañ la naan xale yi booy boo ngeen ëmb seen yére fa am ndox ñu mën faa fóote sonn nañ daal moom fi mu ne nii wax dëgg yàlla dafa yàgg mënuñoo am fenn ndox dara mënatuñ koo liggéey nelawatuñ guddi nelawatuñ bëccëg bu ngoonee nga war a toppatoo sa borom kër sax doo ko mën a toppatoo ndax ñàkkum ndox ndox moom kenn mënu koo ñàkk wax dëgg yàlla suñ doy sax dañuy am ay ñett fan duñu sangu duñu naan depuis ba nëgën amuñu am ndox fii na jowaani nga ko ne dimbali nga ko ne waa ni yéen ñaxan yéen fi taxal sëñ Tuubaa Mbàkke diis nañ leen ko dimbali leen nit yi da ngay dem ba sa borom kër sax ne ma am ndax nga ko oo ma am ndax am cee moom problème sax te loolu lépp sax bokkul te ndax lépp ci jaamu yàlla la bokk sonn nañu nag taay nañu bëgg nañu am ndimbal maagalu Kazu Rajab ba maagalu Kazu Rajab dee si waat ñu ngi root ñu ngi root di ko diis nag eh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te dinu jàppale commencé ci Tuubaa jëm ca kanam waaw ndax li fi nekk lépp daa booy mën a ñoo ko def dañoo roota roota root bay bëgg a dee amuñu sangu amuñu lu ñu fóote amuñu lu ñu naan bala 6 heures du matin la ñuy jóg di wërim ndox léeg-léeg sax dañuy jënd barigo bu nekk ñoo ngi koy jëndee téeméer ak ñaar fukk bu dee par bidon benn bidon ñaar fukk la ñuy fay ñu yennul ñu ko indil ñu ko mbaa ñuy jënd otoy ndox fi mu nekk ndox mi dañoo jënd jënd bidon oto ndox bu nekk ñeenti junni la ñuy jëndee ñii di jëndee juróomi junni ñii di jëndee ñetti junni sonn nañu tayyi nañu dee nañu damm nañu ñu ne da ngay set di ba set di war di war a raxas say xale di fuut ba set di bale di fubeere moo ndox doy na waar te ceet lan santaane ceet bu nu ko docteur yi santee dina di leen raxaso di sangu di raxas seeni xale te amuñu ndox set set ndox ndox moo koy def set ndox koy def. am nañ caay ay jafe-jafe moom ndax xam nga ne boo xëyee tegale say bidon fajar nga jóg dem ci këru nit fajar nga yee ko wala nga taxaw ci buntu këru jàmbur boo xam ne ni bu kooko ubbee rek nga njëkkante am na kër yoo xam ne sax roon nañ ba yàq seenu baaj njëkkante bee metti kenn ku ne yaa ngi bëgg boo dikkee tegale su lu mat fukki bidon bëgg a root sa bu paree nga root xam nga ne metti na ñun waa Touba daal ñun ñoo ngi ci ndawi Touba ñoo ngi ci maawu raxmati ngi ci Touba ca kanam ñoo ngi dagg carte bëgg amum ndox kon nag war nañ loo jàppale Rafah TV abonné leen bu ngeen cliqué fii ci abonné ngeen laal cloche bi rek mën a abonné saa su la ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV